dàq dàq ga mooy ñi ci moom du moom de moom moom da ne bokkut moom xam nga ne bokkut moom bokkut mu dàqut ëllëg sax mais ñi ci ginnaawam te leer na leen ne liggéeyuñu te bëgg a toog ba ca kanam gën a gën a lewal ñooñu woon ñooñu jox dàq gi élection yi ñuy dàq maanaam amu fii fii daal ku fi carte jox réew mi na ko jël après ñu may ñu jàmm tranquillité gars yi dem loolu loolu ëpp importance quoi mais ay dàq élection wala diw war na dem wala warul dem yooyu beneen dimension la amul solo mun ñoo toll bu mois bii ni ñu naan non dañ koy reporté xam nga kenn xamul ba kañ xam nga ñëw nañ ba xam nga mois de février la ñu programme pour def ko dañ ko def rek ku si war a gagné gagné rek. élection yi moom nañ ko def rek moo ay pousse élection yi amuñu benn njëriñ ay Karim Wade ak Sonko ak Macky Sall nañu xool bi teg ko ci benn yoon def ko mu jeex benn yoon moo gën moo ay pousse élection loolu amuñu njëriñ quoi. di d'accord naa ñu repoussé ko pour mu leer mu leer ci bopp nit ñi man de loolu laa ci xam eh nañ ko repoussé nañ ko nañ ko affaire bi gën a leer mu leer.